WPAT Patterson.
Are you tired of high cable TV rates? Sign up for Dish today and get a $500 bonus offer while supplies last. Plus, lock in your price for two years guaranteed. Call All American Dish, your Dish authorized retailer now.
800 818 3967. 800 818 3967. That's 800 818 3967. Offers require credit qualification, 24 month commitment, early termination fee, and e auto pay. Restrictions apply. Call for details.
Advertising by marketing entity Zoom Reverse. A reverse mortgage is not a loan and not a government benefit. Mortgage will be on primary residences only. Homeowners must live in the home and pay all taxes, insurance, and maintenance. Zoom Reverse is not affiliated with any state or federal agency and does not provide reverse mortgage advice or help.
Are you over 62? There's a U.S. government insured mortgage program for homeowners over 62 that can give you money for retirement, medical bills, travel, whatever. It's Zoom Reverse, a safe, flexible mortgage. You decide how much you pay back each month, even pay nothing. The monthly payment is totally up to you. Use a Zoom reverse to pay off your mortgage or tap into your equity and take the cash. You decide how much to pay back. And remember, it's insured by the U.S. government. As long as you want to stay in your home, it's yours. 62? Own a home? Find out how much you can save on closing with a Zoom reverse.
Call 888-820-7250. 888-820-7250. 888-820-7250. 888-820-7250.
A non-attorney spokesperson paid for by Openjar. Attention! Hernia repair surgeries are one of the most common surgeries performed in the United States, with over a million procedures performed annually. However, a popular mesh product has been linked to severe complications. If you had a hernia mesh implanted and have experienced chronic pain, infection, adhesions, wound reopening, mesh migration, bowel obstruction, or need a replacement or revision surgery, then call the Hernia Mesh Helpline now at 800-685-1408. Our network of attorneys are ready to fight for you. Call 800-685-1408. 800-685-1408.
AM 930, WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
الذي الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقسم لما سبق الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق نصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم أنا اللهم صل على سيدنا محمد الفتى لما أغلق والقدر لما سبق نشر الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. La havle ve la kuvvete illa billahil elul azim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi sant mbokku jullit yi ñiy déglu yëpp te di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay. di leen wax ni yàlla baaxewaat nañu ñu ñëwaat ak yéen fii ci seen émission rajo daara ji nga xam ni ñu ngi leen koy defal mercredi bu jot diggante 10 ba 12 incha allah xadara maam Seydi Hadj Malick bi nekk fii ci New York di leen ko may saa su nekk ñi wax ne ñu ngi ziyaar mbokku jullit yépp rawatina auditeurs yi rajo daara bi daara ji waaye émission bi bu ngeen ko bëggee déglu mun ngeen dem ci seen téléphone bu fekkee am ngeen apps tune in ngeen def WPAT 930 AM wala ngeen dem ci seen computer ngeen def 3WPAT 930 AM su ngeen demee foofu di ngeen ko déglu xam naa après dinañ leen jox numéro téléphone boo xam ne mën ngeen ko déglu directement émission bi bu ngeen si bëggee participer mën ngeen woote ci 212 219 9695 incha allah mën ngeen woote ci numéro boobu ginnaaw bu ñu ziyaaree xalifa général Serigne Mbaye Sy Mansour ca Tiwaawoon di xalifa général de Tijane ñu ngi jaarale ci moom ñu ngi jaarale ci moom nuyoo bi di ko teg ci bépp loxo xalifa bu nekk ca Sénégal di leen ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram di ñaan suñu borom oyofal yan bi nga xam ni teg na ko ci seen kaw yàlla defal leen ci jàmm ak xéewal gu yaato yaato yaatu bu ñu ñëwee fii nag ci Amérique ñu ngi jël ziyaar bi di ko teg ci loxo Serigne Ahmed Sy Habib bu Mam Seydi bu bu Mam Seydi Hadj Malick di jaarale ci loxoom nuyoo boobu ak ziyaar boobu di ko teg ci bépp loxo doomu soxna bu nekk fii ci Amerika ak ci diaspora bi di ko ziyaar lu bare bare bari te di ko di ko ndokkeel ci gàmmu gi nga xam ni génn na ci muy gàmmu Philadelphie gi woon ci weekend bi di ñaanal daayira bi yëpp nag di ñaanal itfa yëpp waaye di ñaanal gàmmukat bi euh, Serigne Idrissa Diop yàlla defal ko jàmm ak xéewal ñoom ñëpp rek ñu leen di ñaanal ba ñu mën a yeggale liggéey bi ci anam yiñ ko bëggee ñu fàttali rek ne émission bi xadara maam Seydi Hadj Malick bi moo leen koy may ngir toog di fi waxtaanee diine islam ak bépp xew-xew boo xam ni mu ngi xew ci xadara bi waaye di ko yaatal nag ba ci ëttu këru diine yépp nag bépp këru diine rek bu fi nekk rek ñu ngi ci yaatal émission bi di jox loxo nag borom xam-xam yépp nag yi nekk ci dëkk bi nga xam ni képp koo xam ni am na message boo war a jàllale ci diine ñu ngi la koy ubbil ak fépp foo mën a nekk ba Sénégal it boo wootee dinañ la mën a defal émission ci jàmm ak salaam. kon xam naa première heure bi rek balaa ñuy dugg ci imam bu fekkee ni pare na nga wax ma Zawiya Maam Seydi Hadj Malick bi nag bu fekkee ni da ngeen bëgg renseignement ci bépp loo xam ne lii mu ngi fay dox wala di fa xew. mën ngeen woote ci 917 261 43 90 di ngeen am ku ngeen jokkool su ko defee bépp renseignement bu leen bëgg am wala bépp ndimbal boo xam ni war naa jóge ci yéen dem ci néegu yàlla boobu su ngeen wootee di ngeen am kuñ ko koo leen waxal incha allah ñu fàttali leen rek ne Zoye Mam Seydi Hadj Malick bi ma nga nekk ca 108 East 128 between Park ak Lexington dinañ fa julli julli yi juróomi dinañ fa def bépp events bépp xew-xew boo xam ne xew-xew diine la dinañ ko fa def ñi ngi ci gërëm nag imam yu baax yi nga xam ni ñooy jiite liggéey bi saa su nekk waaye di ci gërëm tamit mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo jàpp ci comité exécutif bi ci njiital Baba Diaw ñi def liggéey bu am solo macha allah dinañ ci ñëw ci kanam bu soobee yàlla dinañ leen indil information yëpp ab update leen ci li nga xam ni moo fi jot a jaar yëpp.
ñu ci gërëm euh, comité exécutif bi yépp nag di leen sant bu baax a baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci néegu yàlla boobu xam naa rek balaa may euh, sori damay bàyyi imam dugg ngir defal leen daara ji mi ngi ci ligne bi waa imam euh, Abdoulaye Diop incha allah tey moo ñuy defaral waxtaan wi asalaamualeykum imam bisimila وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen massawu coono di ñaan yàlla mi nga xam ni moo am njëggal yal na nu yàlla boole defal njëggalam yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla ci weer wu màgg wu tedd wi nga xam ni moom la ñu weesu di shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor wu tedd woowu nga xam ni fa tabarakallahu moom la ñuy doog a jeexal ci fan yu néew di weer wu tedd di weer wu màgg di weer wu sell fa tabarakallahu jullit yépp àndandoo taxawe ko kem seen kartan ci nawaafil yi ci jàng alquran ci diglu tafsiri alquran yi ci dépasser seen alal te lépp ñu def ko rek ngir yàlla ak gëm yàlla ak sàkku ngërëmu yàlla ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yal na yàlla nangul ñépp yal na yàlla nangul ñu suñu koor luñ ci dépassé ci alal itam yal na nu ko yàlla nangul nawaafil yeeg lépp lu jëm ci jàng alquran ak lépp la ca aju wala julli ci yonent bi wala tudd yàlla wala saraxe lépp loo xam ni def nañ ko ci biir weeru koor wi te yàlla tax yal na nu ko yàlla nangul yàlla sàmm ñu ba ñu fekkewaat ko at yu bare bari
amin ya yàlla bu fi kenn manqué ci diggante bi yàlla bu fi kenn manqué le lu ko yomb la yal na nu ko yàlla defal fa tabarakallahu di ñaanal yàlla ñépp nag ñi nga xam ni ñu ngi doon ñëw di ànd ak ñun liggéeyu diine boobu ci saw yi Seydil Hajji Malick ci góor ñi ak ci jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi fa tabarakallahu taxawee nañu ko taxawaay yu rafet fa tabarakallahu te lépp yàlla rek a tax yal na yàlla dolli leen sutura dolli leen teraanga mu nekk lu nga xam ni jaamu yàlla la ñuy sant di ñaanal yàlla ñi nga xam ni fu ñu toll ñu ngi bàyyi xel néegu yàlla boobule bàyyi xel néegu yàlla bi moo di lépp lu nga xam ni néegu yàlla bi soxla na ko mu nekk sa soxla lépp lu nga xam ni aajo nañ ko moo xam fay moogaj bi la moo xam fay bilu courant la moo xam fay ndox la moo xam leneen lu mu doon luñ war a liggéeyaat wala réparation wala assurance la lu mu mën a doon rek képp koo xam ni sa dërëm dugg na ci yàlla gis na ko yal na yàlla fay la ñu ngi ñaax ñépp nag di ñaax suñu bopp di fàttali ñépp di fàttali suñu bopp néegu yàlla boobule danay wax toujours ni néegu yàlla jaamu yàlla yépp a ko bokk te néegu yàlla nag buñ ko waxee lépp lu nga xam ni néeg ba soxla na ko jaami yàlla yi ñoo ci war a taxaw ba loola réglé wu loolu ci ngeen nekk ca tàmbali ba ba léegi kon yal na yàlla saxal leen ci loolu yal na yàlla nangul leen lépp lu ngeen ci dépassé ci néegu yàlla boobu muy sow yu Seydil Hadji Malick wala beneen néegu yàlla bu mu doon ci dëkk bi wala ci bitim réew lu ci waay def rek yal na yàlla defal la ko muy yiw defal la ko muy barke defal la ko itam muy yokkute ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ni seeni cotisation musul manki ci góor ñi ak ci jigéen ñi ci mag ñi ak ci ndaw ñi fa tabarakallahu am na ñoo xam ni lu dëkk bi jafe-jafe dañu fexe ba boole ci seen cotisation weer wu dee wu nekk ci saw yu Seydil Hadji Malick ak ñi nga xam ni xëy na jamono moo leen njett wala jamono moo xaw a metti ci ñoom ba nañu koy bëgge dëgg-dëgg mënewuñ ko noonu yal na yàlla yombal leen ba ñu mane ko nañu ko bëgge ba man di joxe seen cotisation weer wu dee wu nekk lu ngeen ci def nag yàlla moo tax ngeen def ko yàlla moomu tax ngeen def ko nag gis na li ngeen ci def te xam na ko moom moo leen di fayal boppam su ko defee kon loolu mooy soññee bi nga xam ne ñu ngi ciy jiital suñu bopp di soññi ñépp rek ñu taxaw xam ni néegu yàlla boobu day suñu néeg la suñu kër la suñu jaamukaayu yàlla la su ko defee ñu jàpp ñun ñépp kenn ku nekk jàpp ni la ñuy faye moogaj bi rek dinaa fexe ba sama dërëm dugg ca la ñuy faye bilu courant bi dinaa fexe ba sama dërëm dugg ca la ñuy faye assurance bi dinaa fexe ba sama dërëm dugg ca lu fa yàq ñu war ko réparer fay ki ko war a defar la ñu koy faye sama dërëm dina ci dugg incha allah soo bàyyee xel ci loolu rek ñaan ko yàlla yàlla yombalal la ko su ko defee kon nga jàpp ni li nga am lépp yàlla moo la ko may li nga man lépp yàlla moo la ko man loo kon nag li nga xëy soxla yàlla la muy néegam bi la ciy sa kàttan def ko la nga ca man itam nga def ko te yàlla tax kon yàlla na yàlla yombalal ñépp ba nga xam ni seen cotisation dootu manki ñuy fàttaliwaat ñépp ñi nga xam ni ñu ngi diglu kàddu gi daayira général mi ngi ñëw le trente ci weer bi lañu ko jàppaat le trente ci weer bi ñu nekk ay fii ak fan yu néew la daayira général nag bu ñu ko waxee mooy bis bi nga xam ni ci la mboolem dawaayir yi aju ci kër Seydil Hadji Malick ñoom ñépp ñooy àndandoo góor ñi ak jigéen ñi teew ca sawiye ba kenn kuy ñëw nga indiwaale sa cotisation weer weer wu dee wu nekk la gën a tuuti cinquante dollars la ku man lu ko ëpp itam am na ñu bari ñoo xam ni cent dollars la ñuy joxe am na sax ñuy joxe deux cent dollars weer wu dee wu nekk waaye ku amul loolu itam loo am rek indi ko te yàlla tax waaye ku amul dara sax ñëwal nga teew loolu la ñuy ñaan ñépp kon dimanche boobu daal incha allah le trente ñu ngi ci woo góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bàyyi leen xel ni ci weer wu màgg ngeen génne doon jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ci néegu yàlla boobule kon lépp lu nga xam ni soxlas néegu yàlla boobule bu la ci kenn man bu la ci kenn appelé kon bis boobu di daayira général dimanche bi nga xam ni mooy tombeeg le trente ñu ngi ci woo ñépp nag bu kenn manki lépp loo jàpp bàyyi ko nga ñëw teew même boo yorul dara sax ñëwal nga teew ñu gis sa jëmm xam ni sa xel ak sa xol yépp mi ngi ci barab bi yàlla moo la mën loowul sax nga mën a joxe tey waaye bu ëllëgee da nga joxe ku mënta ñëw itam am lu la gànt waaye nga gis kuy ñëw nga yóbbante ko ba tey baax na su ko defee kon loolu ñu ngi ci lancé appel jullit yépp duwut ni rek waa kër Seydil Hadji Malick donte la xëy na ñoo jiite mbooloo mi koy saytu waaye néeg bi nag néegu yàlla la te néegu yàlla nag jullit yépp ñoo ko bokk kon képp ko nga xam ne yaa ngi diglu kàddu gi bul ni cotisation yi kat ñi bokk ci xadara malik yi rek la war déedéet cotisation yi jullit yépp la war ndax néegu yàlla la man moomu ma ko keneen moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp jaam yàlla lanu su ko defee kon jullit boo xam ne yaa ngi déglu kàddu gi xamal ni woote bi sa woote la ñu ngi ci yaakaar seen ndimbal ndimbal mi kat duwut ni man mi ngay dimbali waaye sa bopp ngay dimbali yow mi nga xam ne yaa joxe cotisation cent dollars wala cinquante dollars wala lu la yàlla man loo kon jullit yépp lañ ci woo le trente incha allah bu sept heures jotee na fekk ñëpp ca sawye ba ñu daje joxe cotisation yi waxtaan waxtaanu diine su ko defee lépp lu nga xam ni war nañ ko faa def ci journée boobu ñu def ko bu dix heures jotee rek ñu ñaanante ba beneen bis incha allah kon loolu moo doon soññee bi ci daayira général bi jëm ci sawye Seydi El Hadji Malick ci néegu yàlla boobule ñu ciy fàttali jullit yépp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu kenn manki su ko defee kon loolu mooy siyaar bi nga xam ni ñu ngi koy siyaare di delluwaat di jaale di masawu coono suñu sëriñ sëriñ Sidi Ahmed si ci suñu mbokkum bopp moomu nga xam ni moo wàññeeku ci Washington DC ñu delloo ko ci fan yi rek la dellu Sénégal ñu ngi koy jaale sëriñ bi di ko jaale njabootam ci turu xadara Seydil Hajj Malik yépp ci kilifa gi nga xam ni moo ne ci bopp bi di imam Jibril Jeey ci turam ak alhaji Baba Jaw mi nga xay moo jiite comité bi alhaji Taala mi nga xay moo jiite daayira bi ak ñépp ñu topp ci ñoom ci seen tur la ñuy yónnee sëriñ bi suñu njaal ak suñu massawu coono ak suñu ñaan itam moom mi dem yal na ko yàlla xare aljanna njaboot gi mbay ginnaaw yal na yàlla teg ci ñoom loxo ak ñépp ñam fa fekk yal na yàlla jéggal leen ña ko fa fekk itam yal na yàlla jéggal leen am na suñu mbokk mu gaañu itam mi ngi fii ñu war ko ñaanal suba moom itam yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla xare ko aljanna kon loolu moo doon message bi jóge ci xadara Seydil Hajji Malick ñu doon ko jottali rek ci turu kilifa yi su ko defee kon lii moo doon message bi incha allah li nga xay moo ci war a tegu ci ay minutes yu néew rek moo di fàttali suñu bopp di leen fàttali li ñu bokk te mooy diine lislaam bu ñu waxee diine lislaam nag moo di la nga xam ni moo koy jëmbat dëgg-dëgg man ko dëgëral moo di gëm yàlla gu sell gëm yàlla goo xam ni gu dëggu la gu sax ci sa xol la gëm yàlla goo xam ni da nga koy saxal ci sa xol fa tabarakallahu wax ko ci sa làmmiñ jëfe ko ci say cër su ko defee kon ñu bàyyi xel ci loolu xam ni ngëm gi bu sellee rek te dëgër leneen lu ñëw mën a tegu ci kawam waaye bu fekkee ngëm yàlla nekku fa nag wala ngëm yàlla gi dëgërul lu ñëwati itam du am foo xay fa la mën a tegu su ko defee kon ñu bàyyi xel ci loolu ñun ñëpp yal na yàlla gën ñu xiir ci boppam yàlla gën ñu soril seytaane ba nu man di dégg njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu mel ni kon yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa wàcce benn faar ci alquran ba nga xam ni wax nañu ni bu fekkan ni benn saar boobu rek la yàlla wàcce imam Shafii moo ko wax nee na doy na jullit yi pour ñu man cee tegtaloo seen mbiru diine seen ngëm yàlla fa ñu war a jaar ba mën a àgg ci borom bi subhanahu wa taala yàlla borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ni wal asr inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu alsalihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bilsabr mu nekk ñetti aaya yu nga xam ni li mu làmboo fa tabarakallahu néew na saar bu làmboo maanaa yu ame solo noonu wala maanaa yu matalee noonu su ko defee nag yàlla day won doomu aadama ji li nga xam ni mooy perte nga wala pertaange ak li nga xam ni mooy gañe mooy bénéficié wu ci dara ci sa dund yépp ci sa jaamu yàlla yépp mu mel ni kon doomu aadama ji nga xam ne yàlla may na ko xel li mu war a xalaat dëgg-dëgg bés bu nekk moo di rek loo xam ni dafay tax mu am yiwu yàlla moytandiku lépp loo xam ne day tax mu ñàkk yiwu yàlla xalaatam yépp suba ak ngoon warul génn ñaar yooyu le mu ni kon mu mel ni doomu aadama yu bari seen bëgg-bëgg rek la ca ëpp mooy àdduna dañuy fàtte àllaaxira nag te xam ni mooy li nga xam ni moom la ñu war di gën di bàyyi xel yomal xiyaam di bis ba nga xam ni wala dëkkuwaay ba nga xam ni wala dund ko nga xam ni du jeex mukk te lépp luy tax dund ga teey foofa dund ga neex foofa dund ga sell foofa fii nga ko mën a liggéey ci àdduna yal nañu yàlla gën a xër ci boppam su ko defee kon mu mel ni yàlla wax nañu ci saar woowu ni saar la woo xam ni képp koo xam ni dégg nga ko wala li ci yàlla digle moo xam mag la moo xam ndaw la nee na dana xam lu bare bare ci digganteem ak boromam lépp lu nga xam ni war na ko ci digganteem ak mbokk julitam su ko defee kon mu mel ni loolu moom la yàlla wàcce ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga xam ni lépp lu jëm ci jullit yi ci moom la ko yàlla y wàcce muy alquran moo tax mu wan wax ni anzala alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda wal furqaan mu mel ni kon char la ba nga xam ni jullit yépp war nañ ci bàyyi xel ci nu ñu war a sellal seen gëm yàlla ci noo xam ni moom la ñu war a xame ni njub rek moo am solo def li yàlla santaane rek moo am solo moo tax mu ni ayyuhal mu'minuun ay yéen ñi nga xam ni yéen a wax ni gëm ngeen yàlla te ngëm gi nekk lu dëggu ci yéen ittaqullaha taala wa tuammiloo kitaaballahi na ngeen ragal yàlla te settantal téere bi yàlla bi li ci yàlla digle nga jéem koo def li mu ci tere nga jéem ko bàyyi lépp fa fihil huda wa nuur nee na njub ci téere yàlla bi la nekk yàlla leeral na lépp yoon wi nga xam ni boo ci jaaree di nga jub ba yoon wi yonent bi jaaroon digal ko ñi nga xam ni ñoo di aw xeetam ci yoon woowu ngay jaar wa nuur nee na yoon la wa nga xam ni leer la itam wa sifa u sudur nee na ak jàngoro jo ak saafara boo xam ni dafay saafara jàngoro yi nga xëy mooy tilimal xol yal nañ yàlla musal ci jàngoro yu mel noonu mu ni wa maana al an suratun wajiza fi kitaabillahi hiya suratul asr mu ni saar bi nga xam ni moom la ñu leen di junj muy suratul asr yàlla wax na subhanahu wa taala ni doomu aadama yépp perte nañu ñu ni ah ndax ñépp ñoo perte wala am na ñu manki mu ni lu dul ñi nga xam ni gëm nañu yàlla tey jëf-jëf ju baax di digle lu baax te jiitu ca def ga di tere lu bon te jiitu ca bàyyi ga loolu mooy warugaru bépp jullit su ko defee yàlla dafa giñ dafa giñ ci jamono ñu ni ban jamono la yàlla giñ ñu ni jamono bi nga xam ni ci la doomu aadama ji di dund am ñeneen ñu wax ni yàlla dafa giñ ci tàkkusaan ndax am solo gu nga xam ni heure boobu am na ko solo ci dund doomu aadama ak jaamu yàlla boo ci mën a def su ko defee kon mu mel ni ku toll ni yàlla lu tax muy giñ loolu amal na ko solo ñu bàyyi kon mu ni yàlla dafa giñ ni képp ku nga xam ni doomu aadama nga moo xam gëm nga yàlla wala gëmuloo yàlla mu ni fala yajuusu lahu an yaxsima illa billah li anna alxasma min almaxluq bi xayrillahi shirkun wa huwa subhanahu wa taala لا يخشم بشيء من قلقه إلا إذا كان فيه سر عظيم وحكمة بالغة وهو هنا أخصم بالعصر الذي هو زمان والوقت الذي يعيشه الناس في هذه الحياة لما فيه يلا جنتي jamono ni ndax am solo gu mu am solo su ko defee kon yow doomu aadama ji foo toll rek da nga war di beexal sa ngëm yàlla xam ni kon sa warugar mooy jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell sa warugar moo di di digle lu baax te jiitu ca digle ba di def lu baax itam te jiitu ca di tere lu bon te jiitu ca bàyyi ga itam loolu mooy li nga xam ni mooy warugaru bépp jullit su ko defee kon mbokk yi mu mel ni kon yàlla li mu la digal yow mi nga xam ni boroom xel nga gëm nga ko ngëm gu sell mooy jaamu ko jaamu yàlla gu sell goo xam ne doo ko bokkaale keneen roy ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonante boobu nga xam ni lépp lu mu wax rek yàlla moo ko waxloo su ko defee nga roy ci ay jikkoom yu tedd yooyu la ba ca des nag moo di wa tawaasi bil xaq wa tawaasi bi sabr ngay digle dëgg di tere lu bon ayuha naasu ittaqullaha taala mu ni kon yéen ñiy diglu nanu bokk gëm yàlla ñun ñëpp wa apasu awxaatakum mu ni na ngeen wattandiku seen waxtu yi na ngeen ko sàmm bu baax min addiyaai wa amalukum min alfasaad nee na sànq sa waxtu ci dudul jaamu yàlla ci dudul def lu baax na ngeen ko maytandiku waxtu wu ñëw rek fexeel ba balaa waxtu waa jeex nga fexe ba jeexal waxtu wa ci lu neex yàlla ci jaamu yàlla ci def ci loo xam ni lu yàlla gërëm la ngeen maytandiku itam di yàq seeni jëf te mooy jëf boo xam ni ngëm yàlla lalu ko jëf boo xam ni bàkkaar rek nga cay nga cay jële waxatanimu amaarakum bi taatin wal amalu saliha kon seen dund yépp na ngeen fexe ba màng ko ci topp yàlla topp yàlla gu sell ak jëf joo xam ni jëf ju yiw la xabla an tandamu ala fawatiha la jiitu bis di ñëw ngeen di rëccu fekk wéeg rëccu wees na ndax lu mën a doon ci àdduna dafay jeex bu fekkee dund gi neex la da nga dem ba jamono boobu dund googu jeex bu fekkee man-man la da nga dem ba man-man bi jeex kon lépp loo war a def ci waxtu woowu rek fexeel ba def ko te mooy jaamu yàlla balaa waxtu waa jàll yow ma la yan saxu nadam bis ba nga xam ni nag fa ngay rëccoo bu keroogee day ndeke rëccu du fa am jara xaala taala wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bi sabr na ngi dig digle lu baax di tere lu bon wal amru bil maaruf wal nahyi anil munkar su ko defee kon ibadallah wa min alamati taazimi xaramatillah bokk na ci yi nga xam ni mooy won doomu aadama ji ci mu bàyyi lépp lu nga xam ne yàlla daf ko araamal ak lépp lu mu tere mooy an yukra al mu'min ma naha allahu anhu min al maasi nga fexe ba bañ lépp lu nga xam ni mooy yàlla la nga won ko ginnaaw xam ni jaamu yàlla rek moo am solo mooy tax yàlla fay la mooy tax ëllëg nga am aljanna yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp wa an yukra al afatah ak lépp luy mooy yàlla nga mooy ko wa yabtaida an asbaabi allati tawaqaa fi lmaasi lépp lu nga xam ni sabab lay doon boo xëy moo lay xëcc ba dugal la ci mooy yàlla nga fexe moytu loolale bañ caa dugg bu ko defee wa yaqudu basarahu xamma arama allah sa bët bi na nga koy fexe ba di ko gëmm ci loo xam ni neexul yàlla bul ko xool mukk muy sa xol bi itam nga fexe ba di ci dugal yàlla kese sa làmmiñ yi nga ciy tudd yàlla loo xam ne lu neex yàlla la sa nopp yi nga ciy diglu loo xam ni lu yàlla bëgg nga dégg ko la mooy alquran ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bon ñu gëm ñu bokk gëm yàlla boo ko xam ni jaamu yàlla rek mooy li am képp koo xam ni moo la ëpp lu muy jaamu yàlla gën laa sellal jaamu yàllaam moo lay ëpp ëllëg ak mucc ëllëg yowmal qiyaam te bu dajeeg boroomam subhanahu wa taala moo lay ëppale aw yiw moo lay gën la itam dëkkuwaay ëllëg ci aljanna su ko defee kon nañuy sàmm làmmiñ yi di ci wax lu baax di ci def lu baax loolu mooy jikko doomu aadama kon ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yal na yàlla gën ñu xiir ci boppam yal na yàlla soral ñu seytaane yal na nu yàlla saxal ci jaamu yàlla rek ba bis bi nga xam ne ci lay xëcc suñu ruux mu fekk nu ci lu neex yàlla yal na yàlla sàmm ñu gën ñu xiir ci boppam musal nu ci lépp luy lore yàlla mottali mbooleem yéene yi lépp lu nu yéene ci diine ji ak ci mbokk gi yal na ko yàlla def ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam jullit yépp yal na yàlla boole seen xol yi ñu ànd nekk benn yal na yàlla musal nu ci seytaane yal na ñëpp ànd di jëfandoo di waxandoo di dimbalante ngir yàlla lu ko yomb la yal nañ ko yàlla defal kon lii moo doon kàddu yi ñu doon sànni rek doon ci fàttali suñu bopp di ci fàttali ñëpp yal nañ fi yàlla bàyyi ba nu ñëwaat ci bis bii yàlla bu fi kenn manqué yàlla bu fi kenn manqué le yal na yàlla barkeel jataay bi yàlla barkeel ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi ak ñiy déglu ñëpp yal na yàlla jéggal ñëpp yàlla yàlla saafara ñëpp ñu feebar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
jërëjëf imam ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal kooku ngeen déglu mooy imam Ablaye Diop ca Zawiya Maam Seydi Hadj Malick yal na yàlla gën a yaatal xam-xam wi yàlla bàyyi la ci suñu kanam lu bare bare bare bare ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi ak ci kàddu yu rafet yi. macha allah macha allah yal na yàlla sàmm la kon mbokku jullit yi mbokku taalibe yi dégg ngeen loolu nga xam ne imam Ablaye baaxee nañu ko waaye dañuy ñëwaat rek léegi rek ci benn message bu gàtt rek incha allah ndax xam ngeen ni xew-xew yi dafa bari ñu ngi profité di jaale sunu mbokk soxna Xadi Njaay nga xam ni dafa ñàkk wéy juróom bu góor yal na ko sunu boroom yégal ca aljana ya gën a kawe di jaale ñi nga xam ni ñoo ñàkk ñëpp nag képp ku leen jege ak ku taq ci moom ak mbokk yi fi génn yëpp yal na leen sunu boroom yégal ca aljana ya gën a kawe ñiñ fi bàyyi yal na leen sunu boroom oyofalal tiis wi te mu bañ a metti lool te bàyyi leen fi ñu leen di ñaanal lu gën a yàgg yaay daal dafa am koo am ci ligne bi waa xaaral ma dugal élément bi da nga am ku nekk ci ligne bi soxna Kader xaaral tuuti rek.
allo ñi woote Sénégal lay woote ah soxna Fat Bintu.
waaw waaye ñu ngi ziar lu bare bare bari Seck.
ziar naa la.
ñu ngi la koy delloo bu wér ñu ngi lay ziar di la ziar sa wayjur sunu xarit sama yaay mi ngi leen di ziar bu baax. waa ñoo ngi jaale kooku waay juróom bu góor génn àdduna.
dëgg la.
di ziar ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn ci barke Seydina Mohamed.
amin yaa rabbal alamin.
di lay tànnal gudd fan ak wér.
amin amin amin Seck.
yàlla defal nañu xéewal saawaan baawaan.
amin amin Seck amin.
yàlla làq leen fa yàq yi.
amin amin yaa rabbal alamin.
li ngeen di def am na solo lool.
jërëjëf jërëjëf.
ndax am ngeen lu ngeen mën a def. toog ci seen def émission. di wax ci Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu. macha allah lu am solo la.
dëgg la jërëjëf.
mënoon ngaa def leneen waaye defoo ko lii nga gëm nit ku nekk li mu gëm da ko ci jàppale.
jërëjëf jërëjëf.
te àlla dafa def ne bu àllarba altine jotee dama yàkkamte àllarba commencé barki Serigne Babacar ma yaakaar.
ndeysaan ndeysaan.
di la ziar bu baax di ziar yaayi daara.
mu ngi lay dégg.
naa leen kontaan naa ci yéen lool lool lool lool. sama téléphone nag dañ ko sàcc mais téléphone maire bi laa yor.
jërëjëf kontaan nañu ci yow incha allah.
naa leen gën a kontaan dama bëgg nag ngeen tegal ma dul kenn mbay nag sama xel mi dal.
incha allah léegi rek ñu ngi ciy ñëw léegi rek du sori. bu soobee yàlla jërëjëf soxna Fat Bintou jërëjëf. jërëjëf kon mbokku jullit yi mbokku taalibe yi xam naa dinañ ñëw ci kanam tuuti rek ak Daouda ak information yi nga xam ni war na ko indi mu jóge ci. Zawiya Maam Seydi Hadj Malick bi waaye mu am tamit beneen xew-xew bu rëy boo xam ne bi suñu njaboot ji ne fii di ay ndaw di góorgóorlu bu baax a baax a baax ci diine ji ñoo koy organiser at mu jot muy association des jeunes tidianes jeunes tidianes nag buñ ko waxee rek wax nañu ndaw yi ne ci zoyee maam Seydi Hadj Malick bi yëpp ndax ñoom ñëpp ko bokk waaye wax nañu ndaw ñi nga xam ni ñoo nekk ci New York yëpp yàlla def na ñuy benn di yëkkateendoo di tegandoo yàlla na ci yàlla suñu borom gën a yokk barke bi jaay Muhammad Rasulullah kon xam naa damay ñëw rek léegi nii ci élément bu gàtt rek su ko defee ñu ñëw ci kadeex incha allah Kader dafa mel ni élément bi jàllul waaye xam naa dinañ dinañ gën a insister waat ci kanam tuuti muy message boo xam ni rek kilifa yi dañ koy jàllale saa su nekk di rafetlu li nga xam ni mag ñi ñu ngi ko fii liggéey waaye di rafetlu it di bëgg tamit ñi jël ndaw ñi di leen dugal ci diine ji di leen gën a yokk seen taxawaay ci diine ji ci kaw loolu rek ñu ngi jëm ci xew-xew bu rëy boo xam ni conférence bi le 6 lay am incha allah di tafsir Abdourahman waaw tafsir Abdourahman fas yéene ko def mook Chérif Mamine Aydara dina ñëw ci détails yi bu baax a baax a baax a baax waaye comme aw ma daawda xaaral ma wax ak Kader Baba may ma ma wax ak Kader rek su ko defee après yow nga door a jël incha allah Kader allo waaw soxna fa ñoo ngi ziar waaw bisimila ñu ngi ziyaar bu baax a baax a baax maa ngi jéem a dugal élément bi waaye dafa dafa duggul waaw waaw waaw waaw bisimila problème problème technique bi waaw waaw waaw aha waaw mais fa di di leen ziyaar ci li ngeen ñu nangul ñu dugg ci rajo bi di di di sant bu baax di leen gërëm yow yaay daal mi nekk ci rajo bi di jiital ci nuyoo suñu suñu suñu sëriñ sëriñ Sidi Ahmed si bu maam Habib bu Sidi Haji Malick di ci teg suñu sëriñ sëriñ Abdou Aziz si bu sëriñ Mansour bu sëriñ Babacar si Mansour al Khalifa di ci teg suñu sëriñ ak suñu kilifa imam Jibril Dieye nga xam ne mooy imam ratib bi nga xamante ne moo nekk ci zawiya maam Cheikh Malick di ci teg suñu suñu Serigne Baye Talla Ndiaye bi nga xamante ne moom moo jiite xadara daayira xadara Malikia bi fii ci ci New York xam naa ne wax bi du gudd fa fa comme ni nga ko waxee am nañu programme bu mag boo xamante ne waa New York ñoom ñoo ko am waa États-Unis ñoom ñoo ko am te ci njiit bi waa organise waa association des jeunes tidianes doon góorgóorlu pour xool kan la ñuy jëlee Sénégal pour seen troisième conférence pour bégal waa États-Unis te kiñ ci mujjee am ci ci kàttanu yàlla mu yombaloon ñu ko muy Chérif Mame Aydara ak soppem ba nga xamante ne moom mooy Tafsir Abdourahman Gaye yàlla def na ñu war a ñëw États-Unis fii ànd ak waa association des jeunes tidianes bu bu weesoo loolu xam naa ne programme bi dafa amoon loo xamante ne dañu doon waxtaan ak sama benn kilifa mu ne ma Kader yéen ñi nga xamante yaa leen nekk États-Unis fii fi ngeen nekk rek foofu ngeen mën a mo foofu ngeen mën a mottalee seen tarbiya donc ñun ñi nga xamante ñoo nekk États-Unis ñoo nekk biir New York fii la ñu dëkk donc moo tax ñu war a mën a ñuy góorgóorlu ci wàllu tarbiya ci xadara maam Cheikh El Hadji Malick fii ci New York ci kaw loolu la ñu créé association des jeunes tidianes defe naa ñu bañ koy créé octobre deux mille quatorze la woon tey ñoo ngi ci deux mille dix neuf donc fa tabarakallah def na cinq ans ñu taxaw tuuti rek damay taxaw tuuti rek ci association des jeunes tidianes parce que am am na solo pour ñuy fàttali tuuti ñan ñoo nekk ci biir association des jeunes tidianes ndax boo tuddee Daouda Sarr nga xam taxawaay bi nga xamante moom la am ci xadara bi boo tuddee ku mel ni Aïda Diagne boo xam ne taxawaay bi mu am ci xadara bi boo tuddee ku mel ni soxna umu soxna umu ci jamil nga xam taxawaay bi nga xam ne moom lañ am ci xadara bi boo tuddee ku mel ni Kuku Diop nga xam taxawaay bi nga xam ne moom la am ci xadara bi boo tuddee ku mel ni Adama Sow nga xamante ne taxawaay bi mu am ci xadara bi ak Jóob Lambaay ak ak ñeneen donc loolu dafay wone taxawaay bi nga xam ne jeunes yi yàgg nañ ko am démb bala bala bala association des jeunes Tidianes di ñëw ba bañ koy créer dëgg la donc ci kaw loolu ñu ñenn ñoo ngi laajte daayira la wala du daayira association la lu tax mu war a nekk association parce que moo gën a yaatu et dénoma dénominateur commun bi di Maam Cheikh El Hadji Malick ndax li Daawda di wax rek nee na bëri na koo xamante boo jógee Sénégal am nga looy indaale te li ngay indaale xam-xam mi ngi ci kattan ngi ci wante tamit di nga indaale koo xamante ne yàlla moom la def mu nekk sa wasila bopp dëgg la donc ñoo ñi nga xamante ñoo ñëw te ki nga xamante yàlla moom la la soppal sa bopp mënoo ko ko tànnal mais am na kenn koo xam ne ñoom ñëpp moom la ñu bokk muy maam Cheikh El Hadji Malick ñu ko ñu jàpp ne ne kooku mooy dénominateur commun bi donc ñu ne nañ ko def association boo xamante képp koo xamante soppe maam Cheikh El Hadji Malick nga di nga ci mën a dugg te di nga ci mën a gis sa bopp moo tax képp koo xamante ne kilifa nga ñëw ci biir dëkk bi ñu tàmbale ko suñu kilifa bu mag bi nga xamante ne moom mooy sëñ Sidi Ahmed si bu maam Habib dinañu liggéey ak moom gàmmu ITFA yi association des jeunes Tidianes dina ko taxawee ci li ci bëri ci surtout yi nga xamante moo ñu wër ci state yi nga xam ne moo moo ñu wër yi wàllu Philadelphie activité yëpp ITFA yëpp kay macha allah fa fa tabaara fa kàll beneen kilifa tamit bu fi ñëw tamit fa tabaara fa kàll mu mel ni sëñ Habib si bu Mansour mu mel ni sëñ Mansour si Daba sëñ Mansour si Jamil ku ci nekk rek fa tabaara fa kàll dinañ ci taxaw dinañ dem seeti la ndax amuñu ci benn xàjj ak seen ndax ñoom ñëpp maam Cheikh El Hadji Malick moo leen njaboote wante association des jeunes Tidianes li ñu gën li ko gën a ñor mooy ndaw yi ndax yàlla def na ñun yàlla moo ñu baaxee ñu am benn éducation ci wu ci suñu waajur yi nga xamante ñoom ñoo ñu nampatal ci wàll tarixa bi nampatal ñu ci wàll diine gi yàlla may ñu ñu yàlla indiwaat ñu fii ci États-Unis ñuy ñuy jëmmat loolu. wante tamit bi ñu xoolee xam ne ne am nañu ñoo ñeneen ñoo xam ne ñun chance bi nga xamante ñun moom lañu am ñoom amuñu ko ñu jàpp ne ne loolu ci mission jeune Tidiane la war a bokk mooy ñi nga xamante ne ñoo juddoo ci biir dëkk bi. peut-être que seen waajur yi nekk Tijaan wala peut-être que seen waajur waajur yi sopp tarixa bi ñu ne ñooñu nan lañ leen di def pour organiser leen ñooñu nan lañ leen di def pour taxawul taxawul leen di ci ànd ak collaboration bu am solo boo xam ne suñu waajur soxna Umu Si Jamil je pense que lu ci bëri gis nañu taxawaay bi nga xamante association des jeunes Tijaan moom lay ànd ak moom.
def na ci liggéey bu am solo.
waaw liggéey liggéey bu am solo. donc fa association des jeunes Tijaan du du du. du ci wàllu conférence bi du manqué tamit ñu war a mën a romb tuuti rek pour fàttali nit ñi association des jeunes Tidianes lan lay lan lay liggéey ak lan mooy taxawaay am ci xadara bi fa tabaar fa kàll di la sant di la di la gërëm wante tamit di di di gërëm aussi ñi nga xamante ñoom lañ fi fekk nga xam ne ñooy suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñoo fi créé li nga xamante ne tey ñëpp gis nañ ko ñu jëmmal ko fii ci biir New York ci Harlem nga xamante mooy zawiya maam Cheikh El Hadji Malick fii ci New York ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ñi nga xamante ne aussi suñu wayjur ñi nga xam ne ñooñu meññi tamit ah defe naa la la góor ga waxoon rek fardu alal ibni shukrul waalidayni waaw loolu defe naa ñu bëri xam nañ ko mu ne farata la ci bépp bépp doom nga nga nga nga sant say wayjur fa tabaarakàlla lii nga xamante moom la ñuy def yëpp ci loolu lay dellu ci sant suñuy wayjur pour wone li nga xamante ne ñoom li nga xamante ne moom la ñu nàmpatal ñun am nañ ci fierté am nañ ci fierté tey loolu loolu loolu loolu yëpp moom la moom moom la ëmb di leen sant di leen gërëm ci li ngeen ñu may ñu wax ci kàddu yu tuuti bu amee lu ci lu ci dëng yàlla nañ ko yàlla ngeen ñu ko nëbbal wala yàlla ngeen ko jéggal fa tabaar fa kàlla soxna fa waaye Kader xam nañ ne conférence mooy am le 6 incha allah fële ca national national Black Theatre waaye ngeen jiital si nag ci àjjuma bi méga xadara xadaratul juma bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu nga xam ne suñu kilifa bu baax ga Abdoul Aziz Sy Al Amin nekkoon lu mu taamu ci jamono yi nga xam ni mu jëntelu ay jamonoom mu bëgg malaan mi di yaatu lool lool lool loolu moom naka ngeen ko nar a dundee incha allah ca vendredi bi yaakaar naa ni di ngeen ko yaatal bu baax a baax waaw waaw loolu incha allah dinañ ko gën a gën a wa waajal xam naa ne dinañ ci def beneen bande annonce boo xamante ni képp koo xamante yaa ngi ci dëkk bi ndax bëri na ay tiijaan yoo xamante ay ndaw nekk ci biir dëkk bi dëgg la xam naa ne yitte ak ak ak liggéey moo leen téye mais jour boobu ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu teewee ko pour wone ne ah peut être que jafe-jafe am na ci wàllu dëkk bi ci wàllu liggéey bi mais jour boobu nañ ko ñëw taxawee ndax comme li may wax rek association des jeunes tidianes peut être que moo organisé mais xew-xew bi association des jeunes tidianes moomu ko képp koo xamante sopp nga maam Cheikh El Hadj Malick sa xew-xew la képp koo xamante ne sopp nga Cheikh Ahmed Tijani sa xew-xew la ak képp koo xamante ni tijaan nga tamit sa xew-xew la ak képp koo xamante sopp nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa xew-xew la donc xadara bi fa tabarakallah la parce que comme ni ñu ko xamee xadara xadara xayla la la dëgg toog wax laa ilaha illallah ak allah loolu moom zikrullah la boo xamante ni képp kuy jullit di nga di nga ci gis sa bopp wallaay donc fa tabarakallah ah ñoo ngi ñu jàllale message képp koo xam ne jeune nga ak képp koo xamante yaa ngi ci dëkk bi ñoo ngi lay ñoo ngi lay woo ci xayla la boobu nga xamante xadara juma bi comme nga ñëw teewee ko incha allah jërëjëf jërëjëf Kader euh, liggéey bi am na solo ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax euh, Jërëjëf, di wax ne yàlla na yàlla defal leen barke yàlla na Amiin, ngeen amiin.
nekk ay mag ñu barkeel te lii ngeen Amiin.
def yàlla na gën a wéy yàlla na gën a yaatu ndaxte amiin, ay xale jërëjëf, bu ñu am- jógee teg seen yoo teg seen tànk ci yoonu islam du ñu def lu dul euh, jàppale leen waaye di lancé waat appel bi rek mu traversé cinquante états wu New York City Inch'Allah.
cinquante états wu euh, euh, Amérique yëpp nag euh, di Jërëjëf.
invité ñëpp nag euh, di wax bépp jeune surtout xam naa dinañ ñëw ci euh, ñi nga xam ni xale yi nga xam ni ñoom lañ ko tuddee ren di ñëw di di di invité bépp jeune rek bu nekk ci euh, America bi ñu ngi lay invité ci euh, ñaari bés yooyu di vendredi bi ak di samedi bi le 6 juillet te gan gi ñu am nag jar na ko muy Tafsir Abdourahmane euh, ànd ak xaritam bu bu bu tedd boobu Chérif Mamin Aydara loolu Dëgg la.
du loo xam ne lii nit mën na koo euh, raté donc ñu ngi joxaat ñëpp rek euh, dox daje incha allah euh, le 6 euh, vendredi bi di xaylala bu yaatoo yaatoo yaatu su ko defee rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf jërëjëf, jërëjëf ñu ngi leen di sant ci liggéey bi bu baax a baax ak ci taxawaay yi Aïdara xam naa yaa ngi am euh, baaba asalaamaaleykum président
ah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
kooku président Baba Diaw la waaw Adja Fa.
di président comité exécutif bu Zawiya Mame Seydi Hadji Malick waaw ay ca bisimilah Adja Fa ñu ngi lay ziara bu baax.
Ñu di ngi ziara lay yaay daara delloo.
mi nekk ak yow foofu ci euh, studio bi.
Mhm.
di rafetlu seen taxawaay yéen ñaar bu baax a baax a baax di leen di ñaanal.
amiin Euh, temps bi ngeen di def ci zaawiya bi di ko def ci rajo bi ñëpp gis nañu ko. yàlla na yàlla fay leen.
amiin yaa rabbal alamin waaw li may commencé rek mooy dañuy ziarawaat euh, sëñ Sidi Ahmed si mi nga xam ne ñoo bokkoon nekk last week.
Mhm.
Euh, di ko gën a jaarale lu ñu bokk di rafetlu taxawaayam di ko ñaanal yàlla na yàlla taxawu ko ci yitte yi nga xam ne mi ngi ko am ci ci diina jëg tarixa bi amiin amiin waaw di ziare suñu xarit suñu soppe Pape Abdou Sy mi nga xam ne moom lañ nekk nekkal fii di rafetlu taxawaayam ak soxna Oumou Sy mi nga xam ne ma nga Sénégal amiin Euh, mi ngi fi ma nga Sénégal ñu ngi koy ziare di ziare soxna Safra Tall Euh, bala maa sore rek euh, ci jàkk ji laa bëgg a wax euh, soxna Adja Fa Euh, gannaaw bi ñu nuyoo sa imaam Jibril Dieye ak ay ima yi nga xam ne ñoo topp ci kawam ku mel ni imaam Ablaye imaam Ndongo ak imaam euh, Abdou Aziz Fall Euh, maa ngi gërëm euh, jullit yëpp waaw ci taxawaay bi nga xam ne ak yitte bi nga xam ne taxawu nañ ko jàkka ji surtout nag euh, depuis bi nga xamee ne euh, comité bi bees bi taxaw nañu muy taxawaay boo xam ne ñoom amoon nañu ko avant comité bi ba pare com- continuer ko bi comité bi taxawee Euh, muy loo xam ne bi comité bi bi ñuy jël jàkka ji euh, xawoon nañoo am tuuti jafe-jafe ci wàllu finance waaye wax dëgg yàlla li may wax tu- toujours rek euh, jullit yi nekk fi ci réew mi ak tarixa yi fi nekk ak xadara day Seydi Hadj Malick ku fekk ak ñoom doo tiit wax dëgg yàlla sant nañu yàlla bu baax a baax a baax ci seen taxawaay ñu leen ci yërëm di leen di ñaanal di leen di ñaanal yàlla di leen di xamal ne euh, jàkka ji bari na ay projet yoo xam ne projet yëpp ñu ngi taxaw yëpp a ngi dox Euh, ñu ngi ciy liggéey muy projet yu bari yoo xam ne yenn yi ci wàllu finance la yenn yi ci wàllu maintenance la yenn yi technologie bi la yenn ci sécurité bi lay bon yenn yi ci donation yi la bu ci nekk rek am na ko ko yore ma ngay dox waaw lu mel ne ci finance bi zel bi nit ñaa ngi ciy dugal toujours xaalis muy loo xam ne ma faamata moo ci doon liggéey nga xam ne ku ci bëgg a dugal HICC daat billing ak gmail daat kam moom ngay composé moom ngay def ci sa ci sa zel pour mën ñoo dimbale ku ñu bëgg a dimbale ci mën nga ñu dimbale using cash app waaw muy HICC community kooku mën ngeen fay jaar pour mën a dimbale jàkka ji waaw muy programme yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko am surtout ci wàllu maintenance bi bu ñuy wax El Hadj Niang jiite wàllu maintenance bi Moustapha Senghor di ko ci jàppale bu baax a baax a baax fi nekk nii baaba maintenance bi dafa mel ni def ngeen ci ay jéego yu am solo macha allah macha allah jéego yu am solo solo surtout ci wàllu gaz bi ak ci wàllu sprinkler sprinkler système bi di ci gërëm Moustapha Senghor bu baax ci wàllu alal joo xam ne rees na ko ba def ko ci xalaat ñu jàpp ci passé nañu inspection ñetti inspection yoo xam ne paas nañu ko. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ay repères yu bëri yoo xam ne. ñu ngi ci gërëm El Hadj bu baax a baax.
waaw di ci gërëm El Hadj moom macha allah mi ngi ciy def dooleem di ci def xam-xam. waaw ci wàllu air conditioning bi. ci côté technologie bi aussi ñu aman am nañ ci avancement bu bëree bëree bëri suñu xarit Cheikh Dieng moom moo ko jiite. nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu sécurité jàkka ji. changé nañu DVR bi caméra yi nekk jàkka ji yëpp changé nañu ko.
macha allah yokk nañu ay télé yoo xam ne ay télé sécurité la yokk nañu ko ci jàkka ji def nañ ay intercam yoo xam ne kuy dugg ci jàkk ji danañ la gis am nañ sécurité boo xam ne daal macha allah sori na pareegul waaye ñu ngi ciy liggéey liggéey bu bëree bëree bëree bëri même bu dul sax sécurité caméra yi ci wàllu sécurité yoo xam ne physique la nga xam ne Abdou Assis Diallo moom moo ko jiite bokk ak suñu xarit Daouda Sarr ak ak Cheikh Dieng ñoom it ñu ngi ciy liggéey ci wàllu sécurité jàkk ji muy ay programme yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci muy liggéey boo xam ne liggéey buy continuer la li gën a tax may wax wax ji mooy surtout xale yi maa ngi gërëm suñu xarit Kader ñu doon wax léegi maanaam li ñu wax am na solo lool ñu ñu ngi ñaanal jeune Tidiane ci seen xew-xew bi di ñëw yàlla def ci réussite waaw ñu leen di ñaanal ñëpp di ñaanal communauté musulmane bi yëpp muy programme yoo xam ne soxla nañu ci jeunes yi waaw muy programme yoo xam ne jeunes yi ñoom lañ ñu yaakaar ci jàkka ji parce que ñun ñu fi nekk nii quelque temps lañ fi am jóge fi ñaaree danañ ko fi def jóge fi wala ñu def fi ñeentaat jóge fi jeunes yi ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yore affaire bi mu continuer muy liggéey boo xam ne faw ñoom ñu bokk ci biir pour mën a xam mbir mi naka la doxee waaw parce que mbir mi toujours dafa laaj ak jaxasoo ñun nag ubbil nañ leen ñoom ñëpp suñuy loxo moo xam mutafifin la moo xam jeune tijaan yi la moo xam même ñi nga xam ne sax bokkuñ ci daayira yooyu wala association bi te islam yi tël leen ñu ngi leen di tàllal suñu loxo parce que léeg-léeg mu am ay liggéey yoo xam ne xale yi ñooñu ci mën a dimbal maa ngi am benn bërki démb rek président jeune tijaan yi moom mooy sëñ Diop Lambaye keroog vraiment dafa def lu am solo fekk ma ci jàkk ji rek ñëw fuutee ko ñëw na ñëw na duus yi lay rax keroog fa la fa la nekk fa dafa yendoo raxas duus bi keroog bagage yi nekk foofu ci xooloo bi yëpp mu jëkkati ko évacué ko muy loo xam ne kooku initiative personnelle la yoo xam ne ñu ngi koy séntu ci ñëpp léeg-léeg rek nga xëy ne bëgg naa dimbale jàkk ci nangam téléphoné ma wala nga téléphoné imam Jibril Dieye wala nga téléphoné Omar Cissé ne ko tey damaa bëgg a def benn two hour wala one hour lan nga soxla. ñu wax la li ñu soxla nga defal ñu ko. muy loo xam ne ñu ngi koy séentu ci xale yëpp. loolu moom mooy mën a avancé loo jàkka ji. waaw parce que jàkka ji wax dëgg yàlla centre culturel la. bu dul na jullikaay la rek la mais centre culturel la boo xam ne wax dëgg yàlla suñu lépp ci jàkka ji lañ koy def.
dëgg la faw ñu taxaw ko. faw ñu taxaw ko ci côté parce que li may wax rek kenn ku nekk ci ñun. moo xam xale la wala mag la wala jigéen la. yàlla may na la xam-xam boo xam ne mayu ko sa morom. xam-xam yooyu nag la ñuy dajale pour jàkk ji mën a def kenn ni rek mënut a yóbbu jàkk ji man rek mënu ma ko yóbbu mu dem wallaay foog ñëpp jàpp képp mënu ko yóbbu mu dem paa yow moom rek mënu loo ko yóbbu mu dem dëgg la suñu xool la ñuy boole suñu xam-xam suñuy doole parce que loolu moom mooy avancé loo communauté communauté boo gis même pour wàllu diine communauté boo gis mu avancé ittihaad parce que dañ naan al ittihaadu xuwa waaw maanaam mbooloo bu ñu dajaloo daf leen di jox doole parce que problème bu amee rek mbooloo bi ñuy dajaloo nekk benn nekk benn say di yëkk ci ndóor di da di tëralal ndóor loolu moo ñuy avancé loo moo ñuy jox respect ci ñi nga xam ne ñoom lañ nekk ak mooy américains yi wala ñu dul américains yi nga xam ne ñoom lañ dox sëq ak réew mi baaba ñu ñu mën a def baaba xam naa di nga di nga ràpp parce que cate na fi ñu toll nii waxtu wi cate na waaye di nga ñëwaat rek saa su nekk rek di rappeler li ngay wax ndax am na solo waaw jërëjëf waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp quoi comme que comme que temps bi mi ngi jeex. ñu ngi li ñu bëggoon a wax bari na. waaye incha allah xam naa dinañ duggaat beneen yoon.
incha allah di fàttali nit ñi rek ne sama school bi xam naa ne daaw da bëggoon noo dugg waaye dafa am lu ko gàllankoor.
waaw sama school programme bi le huit juillet lay commencé.
incha allah ku ci bëgg a registré na téléphone ci numéro jàkka ji.
d' accord.
et puis adulte yi itam cours yi war na commencé jeudi bii di ñëw muy gannaaw cours bi nga xam ne Souley Ndiaye oustaz Souley Ndiaye moom moo koy joxe. sama cours bi aussi Souley oustaz Souley Ndiaye moo koy joxe xale yi danañ ko ci jàppale ñoom Babacar Touré aussi danañ ko ci jàppale.